alhamdulilah bien réveillé dans la chaque jour qu'on s'endort qu'on nouveau dossier bien sûr que sëy ba tas na première dame bañ fi takkaloon wujju bu yàggul waaw tas na maaxàllaa fekk famille jàmbur di xew ngeen dugg fa ku ne di wut foofu rek lañ naan cat bu rayul semmal famille boobu daal depuis bañ fi defee ñaari xew yi ba tey coow dalee na topp d'après clan yi fi amoon problème bi dëgg ay audio moo ko waral waaw transféré audio dégg naa ci wote bu bari ko temps booy appareil photo yi ñu suñu parents yi daan jëndal nga yëndu si biir di seen kaaba ga ay veeram ñoo nekk noonu lunettes yi boo ko takkee da gis àjjana lunettes yi dalay woon sa avenir suñu xol yi ba pare yëg ngeen dugg boo amee sa problème doo ko régler habillablement encore benn borom boutique guinéen moo violé benn xale bu am 13 ca Joal te waa kër xale bi nee na dañ ci waa dafa avoué ci saas maxalla suñu frontières yi yaraa frontières yi ki ko jege la tàkk lépp daal dinañu leer ca bés ba fi ne ku yabu dénkaane sa doom balaa bés bee ñëw yenn toppkaa yi àndut yor xale ciy bés ba ci nga nar gis ñaareel yu maye seen ay ndax toppkaa gis naa ci ku nar a repousser mariage am pour toppkaa ay congolais ma di ma wax li leen metti ci seen réew maanaam jafe-jafe yi ñu dund ci seen réew en tout cas chaque chef d'état africain sera jugé devant le tout puissant pour chaque acte après trois mois de mariage waa ji mujjee takk soxna waaw mariage bi dimanche la te waaja rakku actrice ba lay takk actrice ba bokkoon ci série bi am café te sëy ba daal xale bu jigéen ba ay magam ànduñ ci dimanche la nar a jur ndax ba jël na yoonu boppam waa genre ak titulaire kañ la ñuy juboo vraiment nag coowal ñaari yaa ngi ëpp loxo te dafa xasoon faru genre ba moo ko waxoon nga mel ni muus ba naan diwli loolu nag moo a conseil xaw en tout cas fan yi coow topp na leen film doom na ci am nañu ne animatrice bi mooy exposé viom ci réseaux sociaux am nañu ne sénégalais ko sonal te daanu kay naw le lëmbalkatam ba lañ sonal lëmbalkat ba daal ba daanoo ca kaw seen ba ba tey coowal lëmbal bi daa takkarnaas maa dugg ci benn coowal lëmbalkat na leen aali baan na yaa àtte fi ne coowal borom télé ba ak goro ba moo ëpp samay nopp borom télé ba waykat ba rakku waykat ba yaayu jabaram ak borom télé ba xaarama doo tuxu